rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanala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 ci xasiiday Sëriñ Tubaa yim baaxoo ànd ak yéen di ko leeral ci kem kàttanam ci wolof dellusiwaat na indi geneen xasiida gu bokk ci mbindum Sëriñ Tubaa radiyallahu anhu te xasiida googu mooy xasiida gi ñuy tuddee xuqal bukaau muy xasiida goo xam ne sëriñ bi daf ciy marsiyaal daf ciy fàttaliku nit ñu baax ñi nga xam ne dañoo wuy seen boroom subhaanahu wa di leen tagg di nettali seen jikko yu rafet yañ fi nekkee woon te xay na su boobaa kon des na leen mën a roy incha allahu rabbi xasida gi bokk na ci xasida yi nga xam ne xaw naa yàgg ndax histoire biñ ci nettali mooy sëriñ xaadi ma jaxate kala mooy baayub sëriñ bay jaxate mi ngeen xam di taalibe sëriñ Tuubaa ak sëriñ Mor Saasum jaxate sëriñ xaadi moom mi nga xam ne jàngal na sëriñ Tuubaa lu bari ci ay téere nee ñu moo bindoon wenn bayit wi rek daa di bind xuqal bukaa'u ala saadatin amwaati tabukil araadi alayhim kas samawaati nee ñu ma ngi ko yónni woon ko ñuy wax sëriñ Abdullahi Jaane bayit woowu rek la yónnee la sëriñ bi sëriñ bi defal ko xasida gi jeex nettali boobu nettali bu wér la nee ñu nag sëriñ bi xasida gi Tuubaa taalife kon xëy na diggante bi mu ko ko yónnee ak bi mu ko defee mën naa am mujjal temps waaye daal nee ñu xasida gi moom sëriñ bi Touba la ko defee kon boo doon xool at yi xam naa du sori 1888 89 90 jamono yooya 1800 sëriñ Xaadima Jaxate Kale moom i ginnaaw bi bi sëriñ bi dem géej ba dikk daf koo laajte nee ñu ñu ne ko dafa wàcc sëriñ bi seede ci moom ay seede yu rafet. kon xasida gi fii la tàmbalee ñu ñaan suñu borom nag mu nangu ko te dugal ko ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mi ngi tàmbalee bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima mu ne bismillahi ci tudd tàmbalee sama xasida gi arrahmaani yàlla mi aji yërëm bépp mbindeef ci àdduna arrahima yàlla mi aji yërëm bépp mi def bu ko neex ci àllaaxira wasalla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla ala sayidina ci sunu sang muhammadin moo di muhammad wa alihi ak ci ay ñoñam wa sahbihi ak sahabaam ya wa sallama tamu dolli ko wóolu tasliman ak dollee wóolu sëriñ bi dafa tàmbalee fi mu baaxoo tàmbalee rek ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu santoon ñuy tàmbalee suñuy mbir bismillah bismillah lu am doole la loo xam ne bu ci nit ki tàmbalee daq na lépp loo xam ne lu mën a lore la turu yàlla mi nga xam ne adduna ji mooy yërëm ñëpp moo xam ku koy topp wala ku koy moy waaye ëllëg yomal xeyam ñamey jagleel yërmandeem mooy ña xam ne gëmoon nan ko te doon jéem a góorgóorlu ci ay ndigalam di góorgóorlu di bàyyi si di bàyyi ay tereem mu julli ci yonante bi ni ko an santaane ca suratul ahzab ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ne man yàlla day man yàlla seen borom maak samay malaaka ñi ngi jullee ka sëlmal ci yonant bi kon yéen jullit ñi roy leen ñu ci loolu day leen julli tey sëlmal ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mooy di ko ñaanal rek mu ne innamal naka jëfi day bi niyaati aji nekk la ci yéene yi aji takku la ci yéene yi wa niyat yi te sama yéene man sëñ Tuubaa tey at tabarruku moo di barkeelu bi saadaari ci sang yu baax ya loolu xadis la boo xam ne defe naa boo demee ci saxiixul Buxaari yu ca buntu ba rek moom la ubbee muy Seydina amari ibnul Xataab moo ko nettali mu ne jëf ci yéene rek lay takkoo ci lay tuutee ci lay rëyee man ngaa jëf-jëf ju bari lool rëy lool fekk doo ci am dara ci tuyaaba ndax yéen a ja moo bariwut wala doo ci am dara man ngaa jëf-jëf ju tuuti lool nga am ci tuyaaba joo xam ne kenn xamul nu mu toll ndax yéen a ja moo dëgër kon yéen rek mooy li am solo moo dëgër incha allah mu ne man nag sama yéene tey mooy fa yéene bàkk nit ñu sell ña nit ñu baax ña nga xam ne dem nañu wuy ji seen borom te nekkee woon fi lu baax yoroon ay jikko yu tedd tey mooy sama yéene man mu ne xuqa yayalees na albukaa u jooya ala saadaatin ci ay sang am waati yu di way faatu bukki dana jooy al araadi suufi juróom-ñaar alayhim ci ñoom ka samaawaati ni ki asamaani juróom-ñaar mu ne waaye ndax jaadu na ndax yay na ñu jooyal nit ñu baax ñi ndax yay na wala boog nga firee ko yayalees na jaadu na jaadu na lool ñu fàttaliku nit ñu baax ña di leen jooy déet di leen jooy ci ronkoñ wala ci yuuxu déedéet waaye di leen fàttaliku rek di fàttaliku seen yu baax ngir mën leen roy mu ne jaadu na ñu jooy sangu yu tedd yooyee nga xam ne dañoo faatu wuy ji seen borom ndax kat asamaan yi ak suuf yi ñu ngi leen di jooy kon jaadu na ñu jooy leen mu ne ab kii dinaa jooy man alayhim ci ñoom wa arjoota danaa yaakaare fil bukaa i ca jooye xadan ëllëg yowmal xiyaam waa na man ngërëmul yàlla mi nga xam ne xaaboo fàddu nañ ñoom nit ñu baax ñi fii ci moom bil xalaawaati ca neexit ya nee na man day sëñ Tuubaa maa ngi jooy nit ñu baax ñooñee dem te it sama jooy day maa ngi yaakaar ne ëllëg yàlla dina ma ciy jox ngërëm yàlla dina ma ci jox ngërëm incha allah ndax ñii may jooy dañoo jeexoon takk ci yàlla te dañ ci amoon bànneex maanaam jaamu yàlla dafa am lu dafa am ay xalaawa daa am neexite jaamu yàlla koo xam ne buy jàng alxuraan day yëkk ay neexit buy julli day yëg ay neexit yàlla dafa xas naafiq yi ne wa ida qaamu ila solaati qaamu kusaala naafiq yi bu ñuy jaamu yàlla dañuy tàyyal waaye nit ñu baax ñi bu ñuy jaamu yàlla dañuy sawar yaa lëx fa nafsi wanaa njàq rek sama bakkan ala faqdil akaabiri ci ñàkk nit ñu mageña man ña nga xam ne xaabu fàddu nañ li rabbihim wala ba xaabu fàddu nañ li rabbin jëm ci buur daahum boo xam ne woo na leen lil uluwaati jëma leen ci ay daraje yu kawe wala ci ay ajjana yu kawe ndeysaan ma am lu ma mett ci nit ñu baax ñii doon dundal adduna doon dundal sunna su yonante bi xëy rek dem waaye rek dem nañ wuy ji yàlla mi nga xam ne moom moo leen woo yàlla moo nam mu seenu faatu ndax da leen bëgg fay ay ajjana yu kawe bëgg leen yëgal ci ay daraje yu kawe tabki dana jooy allayaale yi guddi yi alayhim ci ñoom nit ñu baax ñooñu wa kem nga eh, ngoon yi wala guddi yi bi wajdin ànd ak njàqare wala xuduwaate ak suba yi ak xëy mu ne ñoom de guddeeg bëccëg ñu ngi leen di jooy waaye weeri sax da leen di jooy guddi ak bëccëg mooy al layaali mooy guddi al ashi misla al ashi mooy firi incha allahu rabbi eh, jamono ji nga xam ne mooy jamono yi gee incha allah waaye weeri tamit dañ leen jooy waaye suuba yi dañ leen a jooy kaanoo nekkoon nañu ñoom nit ñu baax ñii dafa mel ne dañ leen dañ koo laaj nag ne ko waa nit ñu baax ñii yéen melokaan lañ yoroon ba tax nga di leen jooy ba tax asamaan di leen jooy ba tax guddeeg bëccëg di leen jooy ba tax yi di leen jooy weer yi di leen jooy suufi juróom-ñaar asamaan juróom-ñaar lu waral loolu mu ne kaanoo nekkoon nañu ibaadan di ay jaam bi ci ay topp li rabbihim ñeel boroom borom wakaanata nekk jalla màgg na lahum ñeel leen rabban di buur bi minnaatin ci ay xéewal mu ne ñoom de dañoo jëloon yàlla def ko muy seen borom te dëggal yàlla yàlla nangoo nekk seen borom fay leen ay xéewal inna na qaalu rabbuna allahu suma staqaamu dégg nga la ca alquran teg tatanazzalu alayhim almalaikatu allah taqaafu wala taxsanu képp ko nangu ne man yàlla mooy sa borom yàlla nangoo nekk sa borom ndaxam ku ko yàlla mooy sa borom waaye nangoo gi ko nangu day tax yàlla cëral la ci yeneen cër waaye ka ko gàntu gàntu gam ko gàntu du tee yàlla di boroomam de waaye day tax am mbugal wàcc ci kawam yàlla ci yàlla musal mu ne ñoom dañoo nekkoon ay jaami yàlla waaye nekk ci ay topp yàlla yàlla tamit nekk nangoo nekk seen boroom ngir defal leen ay xéewal nangoo féeteeg ñoom kaanoo nekkoon nañu ñoom nit ñi may jooy ya'udduuna daan lim tarkal wird bàyyi wird ma shibain ànd ak regg min al xalaali ci lu lu dagan min asbaabil musibaati daanuñ ko lim mu bokk ci e, sababi ay musiba nee na ñoom nit ñu baax ñi bàyyi wérd maanaam wut du amoo dara loo loo xam ne da nga sas sa bopp ne bis nangam dinaa jàng nangami salaatu ala nabi heure nangam dinaa jàng alxuraan nangam heure nangam dina wérdu nangam nee na loolu nga bàyyi ko ñoom dañoo ñoom dañoo jàppoon ne loola lu garaaw la lu mën a sabab ay musiba la lu mën a sabab ay musiba la nee na naka noonu nga liggéey sa alal ba mu lew jëlee ko fu lew jënd ci lu lew di ko lekk waaye nga lekk ci ba suur nee na ñaar yooyu day dañ daa xam ne ñaar yooyu lu dal nit nag ñoo ko teg ci ay musiba <laughs> lu dal nit xam nga yooyu day miir dafa mel ne dafa oyof daa mel ne dara nekku ci ñoom nag loolu yëpp dañ ko daa garaawal wax yàlla dañ daa garaawal loolu dañoo jàpp ne nit ki fu mu toll war naa wut ay dokk yu muy def dañoo jàpp ne nit ki doonte liggéey nga alal ju dagan doo ja sañ a lekk ba suur dangay lekk rek loo mën a loo mën a jaamoo yàlla la sëñ Tuubaa noonu xasbaka minhu maa yuqiimu sulba taqawiyan li koy tuutia rabba nee na lekk gi doy la ci rek nga lekk loo xam da nga a dëgëru ngir mën a ngir mën a topp yàlla waaw kon ki nga xam ne nag moom tabarkàlla buy liggéey day wut alal ju xaraam nag wala ab wala boog am na alal ba noppi dem jënd ci lu xaraam kooku luy mbiram kooku ñoom xam naa ku leen ko dañuy xam dañ loolu est am na ndax ñoom ki liggéey alal ju alal ju dagan lekk ci lu dagan nee ñu loolu ñoom daa lañ wax ne bu ci lekkee ba suur musiba gënu koo rëy kon ñoom gis nga feñ nekkoon mu ne kaanoo nekkoon nañu isal laylu ndéem guddi ga day arxaa yoor na sitra sutura sa saa xalakin di boromuk lëndëm xaamoo ñu jóg siraan ci lu gaaw li ixyaa it dujun naati ngir dundal lëndëm lëndëm ya ngir dundal guddi ya ne ñoom ñii bokkoon na ci seen jikko bu ñëpp lalee seen lal fa seenee tëdd xaran ñoom ñu daal di lal seeni der fa seenee dundal guddi yi incha allah ba keroog fajar jot ñoom loolu nekkoon na seeni jikko yàlla noonu yàlla boole defal tawfiix te wàcce ci ñun barkeb nit ñu baax ñi baacu fudulan bi dikri llahi xaaliqihim fa nawma fi leyli baacu bil munaajaati sëriñ bi di lim jikkoy nit ñu baax ñi li tax mu di leen jooy nee na ñoom jaayoon nanu fudulan ay caaxaan bi dikri llahi jëndee ko tudd yàlla xaaliqihim yàlla mi aji bind seen fa naw ma nelaw ya fi layla ci guddi ya tamit wala fi layla ci guddi ga baaxu jaayoon nañ ko bil jaadi jënde ko ay déyaale yàlla nee na ñoom ñi dox di caaxaan wala di perte seen temps dawuñ ko def mukk fépp foo xam ne nar nañ faa def lu leen amulun njariñ dañuy indi tudd yàlla waaye guddi gi nelaw yi nga xam ne dafa neex ci bakkan lool dañ koo jaayoon jënde ko déeyaale yàlla toog di wérd toog di jaamu yàlla ba fajar jot tajifu dana béccingal alma euh, almadaajixa tëdduwaaya fi layla ci guddi junuubuhumu seeni wàll dana sori naasi na ñu di way fàtte salma salma wa layla ak layla bil bushaaraati ci mbég ya nee na ñoom seen wet yi seen digg ginnaaw gi dañ koy soreele lal ya maanaam daal duñ nelaw guddi di tëdd ci ay lal ñooñu alxuraan da leen a tàgg tatajaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tabaa ñi nga xam ne bu guddee nga defar sa lal di waaj a ñoom seen wet xalaatul mukk jege lal ba war a mu neen seeni wàll seen digg ginnaaw day sori lal ya ci guddi gi tayit nag bu gudd jotee ñoom dañuy fàtte salma ak laylaa maanaam seeni soxna ye guddi jot ñu bare bare bari di dem di incha allah di jotee jeeg seeni soxna di bànneexu seeni soxna ñoom xalaatuñ ko ñoom loolu dañ koy fàtte sax araab yi dañuy faral di jël baatub salma ak layla am na yeneen baat niki soxda niki hind ak niki lubna di ko tekkee rek ay jigéen ñu rafet ñoo xam ne kenn mënu leen a muñ nit ñu baax ñi nag ñoom lu jigéen rafet rafet mën nañ koo muñ moo tax mu ne bu gudd jotee duñ tëdd ca lal ya dañuy dem di jaamu yàlla dañuy fàtte sax ne ñoom am nañ ay soxna dañ koy fàtte <laughs> tabarakallah fa xaysu fa barazat saa yoo xam ne génn na layla layla muy ndaw sa rafet bi ba xajatiha ànd ak taaram ba tawallaw ñu dëddu ñoom gaa yu baax yi an ha walis moom laylaa ilal mawla jëm ji seen kilifa bi taati ànd ak topp yàlla yi <laughs> ñoom dañuy woon ginnaaw laylaa jublu mawla <laughs> ñun nag dañuy woon ginnaaw mawla jublu laylaa kon ñoom jigéen ñu taaru ba rafet ñoom dañ koy dëddu wan ko ginnaaw dem jàkkaarloog seen borom teeg nun ñi nga xam ne ñi mel ne man ñoom wax dëgg yàlla dañuy wëlbatiku jublu laylaa bàyyi mawlaa yàlla noonu yàlla dimbali yan saw dana ñu fàtte ñoom nit ñu baax ñi laylaa laylaa wa suuda ak suuda jigéen ñu rafet ñooñu fii xiyaamihim ci seen taxawaaya mustaani sii na ñu di way wéttalikoo bi azkaarin ci ay tudd yàlla wa ayat ak ay aaya alxuraan xadiisum seen waxtaane boo ko fekke woon zikru muxnin mooy tudd yàlla mi aji jariñ yàlla mii aji doy doy luloo yàlla mi nga xam ne doy lam am doy na sëkk te képp kum doy loola nga am loola doy naafiin yàlla mi aji jariñ sama din yàlla mii kañu jëmale ajo ya waaye laa zikru hindin déet tudd hind wa lubna ak lubna fil maqaalaat ci seeni waxtaan ci seeni wax nee ñoom dañuy fàtte seeni soxna dañuy fàtte jongoma yu rafet yi incha allah ci jamono jañuy taxaw di jaamu yàlla ñoom bu ñu amee ku ñu wéttalikoo daal ay aaye alxuraan ak ay sikkar lay doon waaye du ñu wéttalikoo jigéen foo fekk seen waxtaan nag tudd yàlla rek ca la ñuy nekk waaye nekk di tudd mbiri adduna nag naan ndaw si rafet na kee jongoma nag lu jëpp lu jëm ci wàllu adduna nee na loolu moom dañ koo dëddoon doo ko dégg mukk ci seeni wax xaw mun aw nit lañu ñoo xam ne aadaahum seeni noon bi aslihatin ci ay ngànnaay xataa alaw bañu kawee kawe bil mazaaya ci ay may wala karaamati ak ay karaama nee ay nit ay nit lañu yoo xam dañoo wut seen i di xeex ak seen noon di xeex ak seen noon ba gàñe seen noon nag daal di làq ay karaama làq ay may yoo xam ne may yu rëy la ngànnaay yii nag bokkut ak ngànnaay li nga yaakaar mooy yor say paaka ak say jees déedéet dana lim léegi ngànnaay yi incha allahu rabbi noon yi muy waxit bu defe ne ay noon yu mu jàkkaar di xeex ak ñoom la waaye noon yi mooy incha allahu rabbi eh, bànne saytaane bànneex ak bakkan ak adduna ñooy ñoo di noon yi ngànnaay ya muy wax nag mooy ngànnaay yi nga xam ne incha allah ay tuub lépp lu ko jëm tuub ak muñ sant ak yu mel noonu rek la waaye du ngànnaay yi nga xam nee na nag ba ñu gërëmee ba gañe seen eh, nooni bakkan ci la ci lañ amee maye yàlla kon muy tekki bala nga am maye yàlla yi daal ak ay karaama faaw da nga gañe say noon arkaanu bayti jamiil xawmi ponki néegub mboolem nit ñu baax ña arbaatun ñeent la yu assaso def na fondement yee bihaa ci ñoom ñeent yooyu bunyaanul wilaayaati tabaxub wilaaya nee na wilaaya bu fekkoon ne ak kër la wala ab néeg la ñetti ponk maanaam ñetti keno yoo ñoo koy téye ñetti keno ñoo koy téye maanaam képp ku bëgg am wilaaya daal ñetti keno incha allah faaw nga matale ko ñeent bokk la wax arbaatun ñeent la maanaam daal bu fekkoon ne wilaaya wala yoonu gaay ñu baax ñi bu fekkoon ne ab néeg la ñu ne ñetti ñeenti poto ñoo koy téye poto yu dëgër mooy yi muy waaj a moo di noppi ci lu amul njariñ wa juucun ak xiif tawilun bu aji gudd baxadahoo nekk na ca ginnaawam shaharun foog mooy ñàkk nelaw wa uslatun ak beru xan suyuqin walis ay sëriñ bil ishaaraati ca junj ya nee na poto bu njëkk bi mooy noppi ci lépp lu amul njariñ yonent bi nee na nit ñi dara yóbbu leen sa waral lu dul li ñuy wax ci seen làmmiñ rek li ñuy wax ci seen làmmiñ rek nee noon képp koo xam ne man nga maa téel sa làmmiñ ba du wax lu aay téel ma sa awara ba doo ci mooy yàlla nee na ma garanti la àjjana nee na ak xiif bu gudd daa tudd gudd rek waaye xiif boo xam ne daal dana yem ba nga xam ne nit ki ci mën a loro incha allah am na feneen fu mu ko waxee ba ko tuddee ne eh, xiif bu yem rek boo demee ci ci naan ba muy tudd foofu moom eh, dafa wax ne imaamul Ghazali moo ko moo ko moo doon lim ponki tasawuf arkaanuha naarifu minha sabaa waaw moom juróom-ñaar la fa lim amal ama amat tasawufu fa fardu ayni la dal Ghazali la wax bi dooni may ne fardu ayni la ko jàppe fardu ayni la ko limee foofa lim ko ba mat juróom-ñaar fii nag da ko fee tënk rek nee ko nopp ci lu amul njariñ ak xiif xiif boo xam ne dana dana lottal say cër ba say cër tàmmu jaamu yàlla ndax ku suur rek baj-baje nee na gannaaw ba mooy di wéetal yàlla ci guddi bañ a nelaw la tegu nag mooy di beru waaye beru gi nag na ànd ak sëriñ boo xam ne daf lay gindi nga bañ a jekk-jekk di beru rek te amoo sëriñ amoo xam-xam xaw mun aw nit lañu ñoo xam ne ñoom gaa yi tariqatuhum seenu yoon tak fii dana fegal al murida taalibi ba asan lor minal maridi bu bàyyi koo ca seytaane aji féttirlu seenu yoon dana fegal taalibe bi ay xeeti ay waru tariqoom seenu yoon daal qasdu wajhillaahi mooy jublu jëmmi yàlla ja doon a hawan walis ñuy jublu bànneex maal usuli ànd ak cosaane allati ya nga xam ne tan fii dana dàq eh, dégg nga naati dégg nga xeeti ndof ndof ya aruunaat mooy gàtt xel ga rek mooy nekk ci loo xam ne du la jural lu baax nee na ay aw nit lañ ñoo xam ne seeni yoon de képp ku ca jaar taalibe bu ca jaar kooku nam ma jëm ca yàlla dana la musal ci seytaane ak mboolem xeeti waru yi xëccal la ay njariñ ndax ñoom seenu yoon mooy jublu jëmm yàlla ja rek duñ jublu dara loo xam ne ay caaxaan la daa di ànd ak nag mboolem sart yi nga xam ne te suuf moom la laaj te sart yooyee képp ku sukkandiku ca yooyee rek xeeti bon bon yi xeeti ayibi bakkan yi ruunaat mooy rek nekk ci loo xam ne ay ay duma la lay jural loola doo ko def ndax loolu ak ndof la nit ki ki nga xam ne day nekk ci loo xam ne mën na ko mën na koo jural ay duma kooka ñoom dañuy jàpp ne dafa nitee diku kooka yewut incha allah yal na nu yàlla defal feex su ko defee nag al usul yi wax nga xam ne day dàqal nit ki xeeti ndof-ndof yooyu mooy nekk ci lu ko amulu njariñ incha allah mooy nekk suñu bindu ñetteel dana ko lim bam jeex. Euh, sëriñ bi fi mu daaneele woon fee ñu mujj fee daaneele woon suñu bindu ñaareel. dafa waxoon ne tariquhum qasdu wajhillahi duuna hawan ma al usuli allati tanfi ruunaati al usul mooy ñi nga xam ne ñooy waa ahlu tasawuf dafa am loo xam mooy usul ci ñoom maanaam daal ba tey mën ko ko tudde ay fondement rek neen na ngay jublu yàlla bañ a jublu ay caaxaan ànd ak nag li ñuy tudde ay usul ci ñoom usul yooyu nag moom la ñuy tàmbali tey moo tax ma ne min tawbatin ci ak tuub xuddimat goo xam ne jiitalees na ko xawfin ak ragal rajan ak ku yaakaar maaxoo goo xam ne ànd naag moom iktaaru xusnin bari ak tiit bari njàqare dawaaman ci ak sax bil qanaati ànd ak doylu ya wa zuhdu ak dëddu fii kulli faanin ci bépp aji jeex lépp loo day jeex te addunaa ci jiitu baadahoo nekk na ca ginnaaw ba waraun sàmm say cër maa tawakkuli ànd ak wakkiilu ci yàlla sabrun muñ kulla saati wépp waxtu jihaadu nafsin jihaad ak bakkan wa shukurun ak sant ridan ak ngërëm bil qadaa'i ca dogalub yàlla tarkul tifaati tarkul tifaatin bàyyi ab geestu ilaa xaalil bariyaati jëm ci mbiri mbindeef yi ngir jublu mbiri yàlla nee ñoom nit ñu baax ñi bu fekkoon ne dañuy tabaxub tabax day poto ya nga xam ne wala fondement ba nga xam ne moom lañ ko fondement yee mooy yii muy bëgg lim bu njëkk ba mooy tuub la ñuy jiital tuub moom mooy jiitu ci lépp nit ki boo bëggee dem ca yàlla faaw da tuub tuub mooy la nga daa def ci loo xam ne du noona nga fexe ko raxas ba mu set nee na tuub moo cee jiitu la ca tegu mooy nga boole ragal akook yaakaar di ragal yàlla lool ndax boo xamee kàttan lu suñ borom dana mat a ragal waaye nga di ko yaakaar dañuy bañ ngay naagu laa na taqnatu min rahmatillah kon boole ragal ak yaakaar léeg-léeg nga tiit lool ba defee ne bu kenn dee ñàkk mucc rek boo muytul yow lay doon waaye léeg nga xalaat yërmande suñ borom ji ak njëggalem gi nga ne ah, bu kenn dee mucc sax man lay doon diggante boobu ngay ngay nekk rek soo ko defee loolu dana la dimbali ba doo bew waaye doo naagu boo dee ba nga xam ne nag yaa ngi toll ci di faatu na nga jiital yaakaar ja waaye bul bul bul ñaaw njott sa borom nee naka noonu bokk na ca ba nee na nga bari lool looy tiit nga bari lool looy tiit ndax koo xam ne muccagoo da ngay tiit incha allah waaye bul defee na rek yow yëf yi jeex na yow daal moom sa yëf baax na xaw ma kuy ñàkk mucc waaye yow bokku ci loolu day tax day tax nga bew incha allah day tax doo doo sàmmonteeg ndigali ak doo sàmmonteeg bàyyi tere yi tayit di doyloo li la saa borom jox suñ borom subhanahu wa taala bokk na ca yooya nee na nga dëddu adduna dëddu adduna lépp loo xam ne luy jeex la nga dëddu ko maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaq li nekk fii yéen muy adduna ak lu ko nuru day jeex waaye yàlla moo dul jeexal su ko dee nga won ginnaaw loola nag jublu yàlla nee na bokk na ca fondement yee nga sàmm say cër ba doo ci def ak mooy yàlla waaye wéeru ci sa borom subhaanahu wa ginnaaw boo defee sabab yi nag nga gëm na yàlla mooy sottal nga wéeru ci moom waaye nga muñ jamono ju mën a doon naka noonu di jihaat ak sa bakkan mooy seytaane bànneex ak bakkan ak adduna yëpp ngay dem jihaat ak ñoom bokk na ca fondement yi di sant ak di gërëm lépp lu yàlla àtte rek mu neex la waxuma la sax nga ànd ca waay nga gërëm ko mu neex sab xol bokk na ca fondement ya mooy nga bàyyi mbindeef yi jëm ci yàlla suñ borom subhanahu wa taala cey seen fondement bi ka dis mu ne tariquhum seen yoon wa ñoom gaa yu baax yi fukk la jaa at dikk na lawazimuha ay war-waram laa bunta laa budda mënta ñàkk minha ci ñoom li arbaabil iradaat ñeel boromi boroomi iraada ñeel boroomu nam ma jëm ca yàlla ñi nga xam ne dañoo bëgg a dañoo am pas-pasu bëgg a dem ci yàlla nee na ñoom ñii nag seen yoon wi seen tukki bi mooy yoon wi ñuy dox jëm ca suñu borom am na fukki mbir yoo xam ne faawu da ko bàyyi xel faawu fukki mbir yooyee da ko bàyyi xel te mooy fukki mbir yoo xam ne kuy tukki ci àdduna ji da ko soxla waaye kuy tukki ci yoonu yàlla da ko soxla waaye nag duñ bokk ba ci njëkk mooy fa maqsadun ab objectif moy ab jublu kuy tukki da ngay am ak ab jublu maanaam ak jublu waxoota moom maa mooy la nga xam ne yuuf di dana ñoddee ilaa safarin jëm ci tukki mooy lii la tax a jóg incha allah numéro un ba nga xam ne kuy tukki mënoo ko ñàkk mooy danga am objectif daa am loola tax a jóg <clears throat> daa am loola tax a jóg te moo di nga ne damaa bëgg a jóge Sénégal loola tax a jóg nga ne dem Màkka ngir omra wala dem Màkka ngir aj ñoom ñii nag seen objectif mooy yàlla suñ borom subhaanahu wa taala ak ngërëmam minha bokk na ci e, yooyu dalilun ab guide guide mooy ab tegtal ka cheikh ni ki ab sëriñ si futu ahadin kuy borom kuy boroomu fàttaxu koo xam dafa am ay fàttaxu ay ubbi suñ borom da koo ubbee ba mu xam mbir yi koo xam ne day tukki mënoo ñàkk ab guide mooy ku lay won yoon wi ndegem fi ngay jëm mosoo faa dem faaw koo xam ne ku la won garage ba ku la wan oto bii moo jëm nangam ku la wan avion bii moo jëm barab nangam loolu mënta ñàkk su ko defee loolu nag nga xam ne ñoo lay indiqué nee bu dee ñoom ñii nitu tasoo bi kooku ab sëriñ lay doon boo xam ne yàlla da koy ubbil yoon yi ba mu miin yoon wa mu mën laa teg ci yoon ne la fii ngay jaar nii ngay def wazaadu kub yóbbal waxu moom nag at tuqaa moo di ragal yàlla min ha bokk na ca yooya silaahuhum seen ngànnaay waxoota moom ngànnaay la nag al wuddoo mooy ñàpp njàpp allati njàpp mi nga xam ne yéen fii dana dàq an najaasaati xeeti sobe yëpp bokk na ci yooyu mooy kuy tukki faaw nga amub yóbbal mooy faaw nga am argent de poche boo xam ne bu dee ba jaaxle mën cee jëfandiku ñoom ñuy seen tukki wi ci yim ci yoonu yàlla nag seen ngànnaay seen seen yobal mooy ragal yàlla ni alxuraan waxeen wa tazawadu na ngeen yóbbalu de waaye fa inna xayra saadi taqwa yóbbalu de mooy ak ragal yàlla ba ñuy aji màkka jàngoon nan ko bokk na ci mooy faawu kuy tukki nga am ngànnaay loo xam ne comme da ngay jaar ci àll yi rabi àll yi mën nañ laa kii wala defkatu lu ñaaw yi na su boobaa ñoom ñii seen tukki bi ñu jëm ci yàlla seen ngànnaay mooy njàpp waxtu wu jot duñ takkoog njàpp duñ tàqalikoog njàpp mukk ndax njàpp kaaraange la minha bokk na ci yooyu asiraaju làmp bi sikrillaahi te moo di tudd yàlla jàlla màgg da ci yooyu almataya waruwaaye bi himmaatin te moo di ay yitte aliyaati yu di way kawe nee na kuy tukki faaw nga am ab lamp de boo xam ne bu guddee nga mën caa nit ñoom seenu lamp ba ñuy ba ñuy tukki jëm ci yàlla mooy de turu yàlla waaye kuy tukki faaw nga am loo war benn fas wala nga war oto wala avion nee na ñoom seenu war waaye yee ñi war bi ngir jëm ci yàlla mooy am yitte yu kawe min ha bokk na cooy al ukkaasu dokk ba mooy yat wi ñuy sukkandiku loolu tukkikat yu njëkkee dañ koo fonkoon lool ak nangu seenug lottu ngir weeru ci yàlla ñoom la ñuy sukkandiku li nga yor nga xam ne booy tukki di ci sukkandiku boo doxee ba sonn mu lay dimbali yet woow nga yore nee na ñoom nag mooy dañuy nangu ne dañoo lott amuñu kàttan waaye di dimbali ko kàttanu yàlla kon ci kàttanu yàlla la ñuy sukkandiku wala xisaamu takkaay la la daa ahli tariqati fa ñooñ yoonu yàlla wa xasmun moo di ak dogu <clears throat> wala moo di ak takku bil xaqiqaati ci mbir yu dëggu yi kuy tukki léeg-léeg dañ daa takku ba dëgër takku ba dëgër nee na takkaay looli nag moo di pas-pas ak takkaay bu dëgër yi ñuy am ci mbir yi nga xam ne mooy mbir yu dëgg yi maanaam pësteef bi ñuy am ba lépp lu mat a def ñu def ko loolu mooy laxasaay yi laxasoo bu njëkk boo daa tukki da ngay laxasu ba jekk defar sa bopp ba nga xam ne sa yére du la sonal dara du la sonal ñoom nag loola dañuy takkaayoo yi nga xam ne ay mbir yu maanaam yi nga xam ne ay mbir yu mbir yu sell la mbir yu dëggu la ci ak wér moom lañ daa takkaayoo wa min lawaasimaha bokk na ci ay war-waram min haajuha ngiram ma mooy yoonam ba abadan faawu wa waxiya ta moom nag ashariatu mooy sharia fii baden ci ak tàmbali wa gaayaati ak i yamukaay ak i daytal nee na bokk na ci li mënta ñàkk ci tukki boobu mooy kuy tukki faawu nga am yoon woo jaar faaw nga am yoon woo jaar ndax yoonam moo la yóbbu ca dëkk ba ñoom nag seenu yoon bu ñuy jëm ci yàlla mooy sharia mooy li yonent bi rëdd neen loolu bu ñuy doo ko tàmbali ci sarixa la ñuy jaar buñ demee ba àgg ci sarixa la ñuy jaar kon fii sëriñ bi wane ne leen nituk yàlla di woote ne nitu tasawuf laa taxut ñu gis la ngay def ay mooy yàlla ñu ne waaw baatin la wala nangam kon dañuy bay gis ñu bari ñoo xam ne ñaawaa moom dafa ba àgg ci yàlla foo xam ne toppatul sarixa sëñ bi nee na ah, ñoom de seenoo yoon sarixa la waaye bu ñuy doog a tàmbali ak bu ba àggit lépp ci sarixa la ñuy teg duñ gàddi sarixa mukk du tax mukk ñu def ak mooy yàlla ngir ne ñoom dañoo àgg ci yàlla moo tax du tax ñukk ñu bàyyi yoon wa ngir na dañoo dem ba weesu ko mukk bu ñuy doog tàmbali ak bu ñu àggee yëpp ci sarixa la ñuy tegu mooy yoon wa ku ko jàdd rek jàdd nga yoon wa wa rufqatun ak ay àndandoo waxiye ta moom àndandoo yo ñoo di ay mbokk lahum yoo xam ne ñeel na leen himamun yitte ju kawe maal wafaay faay ak matale ga bi sidixin ci ak dëggu fi luquwaati ca mbokkoo ga kuy tukki mënoo ñàkk ay compagnon ñooy àndal ci tukki bi incha allah nee na ñoom ñii ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal mooy ñu mel ne ñoom am yitte ju ñu am am bëgg-bëgg bi ñu am kon nit ki booy ànd da ànd ak koo bokkal bëgg-bëgg waaye mënoo bëgg lee kee bëgg lee nga def ko àndandoo su boobaa rek du baax faaw am ko ci ñor di morom ja kon ñoom dañuy xool ñi am pësteef am yéene yàlla rek ñor leen amuk dogu ñooñu lañuy àndal su ko defee ñoom dañuy wéttalu konte koo ci xool rek sawaraat ci jaamu yàlla neen ay mbokk yoo xam ne am nañ yitte yu kawe ba noppi nag amuk dëggu am matale ak kóllëre lépp loo xam ne day rafetal ak mbokkoo ñoom ñu di ko def ba mat sëkk incha allahu rabbi yal na nu yàlla defal tawfiix kon loolu mooy fukki yi nga xam ne euh, kuy tukki mënoo koo ñàkk waaye ku jëm ci yoonu yàllaat mënoo koo ñàkk wal kullu min jumlati saadaati du ratabin yakfil murida maridan da gawayaati mu ne wal kullu képp min jumlati saadaati ci mboolem sang yu tedd yi zu rotabin boroom daraja la yeg fii dana fegal al murida taaliba ba maridan seytaane zaxawaayaati kay boroomi mbewte mu ne sëriñ su baax si ku ci nekk yàlla da ko defal daraja ju rëy joo xam ne képp ko ànd ak moom ngir war a jëm ca yàlla saa boroom dana la tek ci yoon woo xam da nga mën a mucc ci seytaane mi nga xam ne dafa fettirlu seytaane mi nga xam ne dafa réere yàlla ba tax incha allah mu weddi ko won ko ginnaaw tëkk ko kullun képp minal xaw mi ci nit ñu baax ñi cheykhun ab sëriñ la aalimun boroom xam-xam la wariun aji sàmm ay cëram ba du ci mooy yàlla minhum am na ci ñoom nag murabbin aji yare aji tërbiya bi azkaarin ci ay sikkar wa xaalaati ak ay mbir nee euh, kilifa yu baax yii ku ci nekk ab sëriñ dëgg la ab sëriñ dëgg la ab sëriñ mooy koo xam ne làmboo na mbooleem jikkoy sëriñ si te mooy ni ko sëñ Tuubaa waxee ci gàttal nee na mooy koo xam ne fa yonent ba tegoon tànkam fa la ko teg donte ab tànkam mënta joti tànk yonent bi sallallahu alayhi kon du sëriñub foo du sëriñub automatique sëriñ boo xam ne rek danga naan ab sëriñ la ndax saa ab sëriñ la woon kese kese déedéet déedéet faaw rek. bu sa baay nekkee sëriñ da ngay xool jikko yam yoroon ak tërbie gam amoon nga jaar ca yoon waaye dog koy doon incha allahu rabbi ni nga xamee ne euh, métier yi xew menuisier sa doom du judd rek nekk menuisier lu dul ne da koo jàng incha allahu rabbi kon nit du judd rek nekk ab sëriñ noonu déedéet waaye nag bu fekkee li baayam doonoon jaar na foofa mën na koo doon incha allah ko sàmm ay cëram la nee na am na ci sëriñ si nag ñoo xam ne bu ñuy tërbie nit. dañ koy tërbiya ay jox ko lu muy jàng wala lu muy sikkar wala boog ñu ñu di ko tërbiya ci mi geneen na di ko def loo leneen di ko bàyyi ko ci toolee muy bay wala nangam te fekk nag ñoom mat nañ sëriñ su boobaa jariñu dana am waaye bu sëriñ ba matul sëriñ nag di la bàyyiloo da ngay sonn rek waaye doo ci jëlee dara coono bu àdduna rek nga cay jëlee ak ñu lay jëfandikoo kon la sëñ Tuubaa waxoon ca Masaalikul Jinaan ne képp kuy wuta di sëriñ na ko seet ndax naxaate bi daa bari isbaana jahran annama shuyuq hada zamani julluhum fuquq loolu ba mu koy wax yàgg na lool dafa mel ne léegi moo doxoon mu koy wax nee na dee leen seet sëriñ si ngeen di jébbalu sëriñ si ngeen di jaayanteel ndax jamono jii kat li ëpp rek mooy ñuy naxaate ñoo ci gën a bari sëriñ soo xam ne dañ lay jëfandikoo rek Sëriñ Tuubaa mooy sëriñu sëriñ si boo waxee loolu xam na li wax minhum am na ci ñoom muraqin aji yéege bi xaalin ci mbir waxdaha moom dong abadan faaw minhum am na ci ñoom kilifa yi murabbin aji tarbiya murabbin aji tarbiya muraqin kuy aji tarxiya bil ishaaraati ci ay signe ci ay junju nee na sëriñ si dañoo wuute nu ñuy defere seeni taalibe gis nga ni mu ko waxoon nee na am na koo xam ne da jox looy jàng am na koo xam ne da lay liggéeyloo am na koo xam ne nag moom day boole tabarkalla maanaam day yem ci di lay yéege rek di tarxiya rek mooy di lay yéege di la yéege ngay jëm ci sa borom subhanahu wa taala am na koo xam ne loolu rek mooy métier am na koo xam ne daa boole ñaar yëpp da lay tërbiya defar la ba génn ci yow jikko yii tee nga maneek sa borom mu yéegi la nag nga jëm ci suñ borom loolu nag ay junj ay siiñ ay tomb ay nangam gis nañ suñ Tuubaa ni mu daa tombe yëpp ay siiñ la rek incha allah kulun képp ci ñoom daal xabiirun aji dañ kumpa la bi adduwaa il xulóo bi ci jàngoree xol yi maan boole seen yakfi dana fegal al muridina taalibe yi anwaaxa shaqa shaqaawaati xeeti te xeeti yëpp nee na kenn ku ci nekk ci ñoom dafa mel ne doctor bi ni muy jàngee nekk généralist nga xam jàngaro jàngaru ju mën a doon xam na ko man koo faj su ko defee nag moo tax képp ku ñëw taalibe yi ñëw di yeeslu ci ñoom ak di sàkkoo jëm ca yàlla kenn ku ñëw dana xam sa jàngoor ak la lay faj mu faj la ba nga xam ne tawat yi nit ñi di feebar nag mooy tawati texee di ak bokkaale yàlla ak luy tee maneeg sa borom jikko yu ñaawi ñoom loolu lépp la ñuy dindi ni ko médecin bi di defee rek kullun képp karimun aje tedd la ta taqiyun aje ragal yàlla la zuhudan boromuk njub la wa saqan te aje tabe la yumdi dana saxal di wëyal an nasihata laabire ga fii kullil bariyaati ci mboolem mbindee fi ne ku ci nekk rek nitu yàlla la ko xam ne ku yàlla jox tedd nga la ku ragal yàlla boromuk njub ko tabe lool fu mu toll nag mi ngi xool luy jëriñ nit ñi rek mu di leen ko wax ndeysaan yamxu dana far xusuusan nafsi cëri bakkan jumlataha mboole seen bi taqwan ci ak ragal yàlla yaay dana wattu moom nitu yàlla koo koy uluman ay xam-xam minal mawla yu bàyyi ci yàlla mii kilifa ga sanniyaati yu di way yëkkati ko nee na kenn ku nekk ci ñoom taalibi bu ñëwee ci moom mu gis na bakkanam bakkanam am na ay sikk maanaam bakkanam dafa am cër ci moom daa am jeexit yu muy def ci moom bakkanam daal am noonam la boo xam ne mi ngi koy yàqal nee na day effacé loolu ba mu set wëcc te nag ci ragal yàlla ci ak ragal yàlla rek la koy jaare nee na comme ci ñoom it yàlla jox na ko xam-xam boo xam ne du xam-xam bu ñuy jàng waaye bu yàlla di maye rek la muy a ladunni xam-xam bu yàlla di xam-xam bu nekk fo moom nga xam ne yër du la ko taxo xam wa allamnaahu min ladunna moom la yonent yàlla xadir waxoon ci ña ko jàppe noona ne yalla nee na maa ko jox xam-xam boo xam ne fii noonu la bàyyi ko du bu ñu yër moo tax ma xam-xam yu cher yu am valeur sanniyaat yubdi dana feeñal tariqata ahlillahi yoonu nit yàlla waaw waadixatan mbir mooy aji leer lil muxtadina ñeel way ginniku ñi ñeel ñi bëgg a jub jami an boole seen bil fuyudaati ci ay may yoo xam ne day day baawaan nee na képp ci ñoom day leeral yoonu yàlla ba mu leer ngir ñi ca bëgg a jaar man caa jaar képp ku ñëw mu gindi la wan la leeru yàlla wan la aw yoonam ba nga man caa jaar lépp rek ci kaw mayu yàlla gi leen yàlla may nga xam ne amul fu muy yem kullun képp ci borom nitu yàlla yooyu lëxoo ñeel na ko himmatun yitte yarxaa joo xam ne dana yéege bi haa ci moom abadan faaw ilaa asisin jëm ci yàlla mi aji tedd mu mu isin kuy aji terle bil futuhaati ci ay fatuxu ci ay ubbee nee na ku ci nekk yitteem kawe gu muy kawe ci lay jaare di yéeg jëm ca yàlla saa borom subhaanahu wa taala te suñ borom moom yi moo leen teral di leen defal ay fatuxu mooy mbir yu làqu yi mu leen koy won moo tax sax yaraa dana gis moom yàlla ki alxafaaya yu bi aynil qalbi ci bëtu xol zahiratan ñuy aji feeñ kama yushaahidu naka lay jàkkaarloog maa la nga xam ne taxtal akin naati nekk na ca ron yu nëbbu ya nee na képp ci ñoom yàlla da koy dimbale ba nga xam ne mbir yu làqatu yi sax dañ koy mën a gis maanaam li ñu tuddee basira xam nga dafa am basar basar mooy gisu bët basira mooy gisu xol ñoom seeni xol la ñuy gisee moo tax mbir lu mu nëbbutu nëbbutu lu mu làqatu làqatu dañ koy gis mu leer nañ ñi jàkkaarloog ñoom kon dafa am daal dara ci lu leen suñ borom wan ci loo xam ne mbir yu làqatu la waaye suñ borom di leen ko feeñalal moo tax nga leen gis ñuy wax loo xam ne ak seegut ak di wax yu bari yoo xam ne da lay jaaxal alakira mooy lu nëbbu rek mooy lu suturawoo yeex wi dana làq moom nitug yàlla ki diyaa an ak leer ka daw i samsi ni ki leerug jant bi xaysu naxaa fu mën a jublu yaxsaa dana cëral bihaa ci dana cëru dana bi bihaa ca leer googee kullu sax sin jëpp jëmm sisti naaraati kuy sàkku leer nee na ku yàlla da koy defal leer goo xam ne leer gu yéeme la comme ni jant bi ameek leer ci baatin noonu la leen yàlla di defalee ak leer goo xam ne ku am baatin boo tollee fee xam ne fee nitu yàllaa nga fa comme dara ci yàlla fuñ mën a jublu rek leer ga ànd ak ñoom leer googee na képp kuy wut ak leer bëgg a ñëw bëgg a jaayante bëgg a jëm ci yàlla leer googee boo ñëwee ci lañ lay tànqal ba nga feesal yàlla noonu yàlla taas ci seen barke wassalaamu علي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنالي